assalamu aleykum wa rahmatullah mbokk internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax si leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo pour ñi nga xamante ne bees yéen maa leen wax welcome bienvenue abonné leen cliqué leen si cloche boobu ngeen gis vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko seetaan numéro téléphone pour ñi nga xam ne dañoo bëgg si ginaar bombardier yi ginaar macha allah yi numéro téléphone mu ngi noonu 77 196 05 40 léegi mbokk internet yi temps yëpp maa ngi gis commentaire bi la Mouhamed waxal si Sékou Mara Mouhamed waxal si Sékou Mara nekk benn jour boo xamante ne je pense en 2021 laa defoon ci moom découverte bu muy Aussi signé contrat pour du côté de Bordeaux maintenant nag jamono bi équipe bi pas kay baaxel c'est un joueur très intéressant tey jii moom euh, papa, mooy euh, sénégalais yaayam di français euh, yaayam xam nañ ko sax France d'ailleurs benn Le papa papaam nag entrepreneur le, donc du coup mon France la judo Paris Euh, ñu doon wax si taxawaay un xam donc di leen wax aussi tamit moom droitier avant centre un attaquant bu xamante puissant man il me rappelle un peu qui dit qui euh, dit Bamba Dieng mais euh, en plus vif quoi en plus vif en plus explosif quoi xam moo gën a explosif et quand on parle de explosif maanaam taf taf mën na teg trois personnes tirées alors que benn Bamba Dieng loolu lay xam nga dafa war a di jàngaat dribble quoi maanaam dribble nii xam nga avancé benn benn euh, Seck Mara euh, voilà mais man mais nag euh, suñu gaynde bi di Bamba Dieng am na yeneen at yu xamante ne am na ko te te kii di Seck Mara am na mais même profil ah, daanak man xool naa bu baax a baax quand même kii di Seck il faut savoir que du côté de Bordeaux catastrophique cette saison là euh, maanaam équipe bi moo tax may wax la satisfaction yi boo xoolee supporter Bordeaux yi beaucoup bëgg mu Ligue 2 parce que dañoo jàpp ne booy bu demee rek ñàkk nañ boo xoolee sax valeur marchande bi am est-ce que c'est euh, seen joueur am nañ loolu ñeneen ñi fa nekk quoi je veux dire donc un jour, bu xamante ne temps est passé en troisième il faut gagner, wax ne carrément mom mi di euh, Seck Mara club de cœuram la dafa bëgg andi wat bordeaux di kam fu di que mentalement il est, il est là lah. maintenant nak moy deglu offre yi parce que ya ya olympique de marseille xam très intéressant et eh, gis ngeen ne bamba ñe il se peut xam

et maa ngi gis si France dañ ko mës convoqué su petite catégorie yëpp U16 dañ ko convoqué U17 dañ ko convoqué U20 dañ ko convoqué woo ko ñaari yoon espoir donc ni nii sax ngi joué tournoi bu xamante bu puissant la quand même bu am man côté puissance bi Bamba Dieng la may jox xam nga Bamba Dieng nag moo ko appelé euh, Olympique de Marseille ak entraîneur bi Bamba occasion du côté de Bordeaux mais c'est extrêmement difficile match euh, défensivement parlant c'était voilà xam donc bu ñu toggul Ligue 1 je pense que c'est ça mais benn Sékou Mara jeune le bon ngi de a bi première saison et que équipe yi top. topp ko ça veut dire que xool nañ ko xoolaat ko xoolaat ko ba mën na xam ne profite bu la donc pour ñuy demaan euh, sax euh, espoir yi man maa ngi commencé gis sax pour équipe nationale du Sénégal parce que boobu ni ni ni nii mën ko espoir yi équipe nationale du Sénégal du fa ñew xam nga lenn rek nga ko ki a jaay dara coupe du monde rek nga ko jaay xam donc c'est est à lui de faire le choix man bu toogee après coupe du monde baax na bu ko ni baax na en tout cas attaquant yaa ngi nii saison bi la dina daw ku nekk na privé bu fekkee mérité na ñu convaincre que ñu convaincre si fois mérité ko nag ñu bàyyi ko parce que aussi ñi fi nekk nii mérité nañu leur place boo xoolee ñun suñu problème nekkul sax si côté attaquant neuf pur c' est juste que boy bi il n'a que 19 ans c'est un jour boo xam ne dafa nekk ci yoon mën na gën a progresser moo tax ñu koy wax léegi léegi bu ñu bëggee xaar mu gën mu gën a taxaw rek day métti quoi léegi nga mën a wax ci moom mu mën a ñëw équipe nationale du Sénégal donc pour ñi xam ne ñoom doon laaj temps yi yëpp vidéo Sékou Mara moo ngi nii topp nag ah après dinaa def benn vidéo comme d'habitude expliquer ay qualité téye sama micro xam ma jàkkaarloo ngeen yéen sama internet wax leen si Sékou Mara mais bii nii ñamal la rek dama leen wax ne moo ci yoon équipe ñoo ngi koy superviser donc nañu teel a ci dossier bi si toutefois nag intéressé nañu mbokk li mu nekkoon vidéo maa ngi leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV